waaw jërëjëf euh, soxna si bon tey dañu ñëwoon di séddale école yi fourniture bi nga xamante ni commune bi euh, indi woon na ko pour l'ensemble de municipalités pour l'ensemble des écoles yi nga xam moo nekk ci ci commune bi bu ngeen xoolee li wane ni rek am na importance bu ñu accordeel éducation vraiment une importance particulière mooy daaw daaw jéeg dañu joxe woon fii ñaari million daaw ñu joxe ñett ñu ni doyul rek ñu joxewaat ñeent ci bu déwénee incha allah nañ ko yokkaat loolu nag dafay wone maanaam gëdd bi nga xamante ni ci juróom-ñeenti compétence yi nga xamante ni moom la ñu état dénk moom la ñu état transféré day wone importance biñ ci jox éducation comme ni ko président Macky Sall lay joxe parce que bu ngeen xoolee budget wu état téeméer bu nekk ñeen fukk yi éducation lañ ko jox donc ça veut dire ce que ça veut dire euh, yamuñu ci loolu parce que dañu xool ni que niveau élève yi dafa bése ma jël ay ndaw wax leen ñu dem waxtaan ak parents d'élèves yi waxtaan ak élèves yi waxtaan ak enseignants yi bi ñu xoolee moom ay manquements yu bëri. manquement yooyu nag yooyu la ñuy jéem a euh, saafara euh, ren ku xool xam ni war nañ fi tabaxaat yeneen juróom-ñeenti salle de classe bokkut ak salle de classe yi nga xamante ni euh, am na ñeenti salle de classe yoo xamante ni may nañ ñu ko daaw ak ren ñu ngi aussi cloture beneen CM bi nga xamante ni parce que ñaari CM moom ci dëkk bi bi nga xamante ni moo nekk Mbousnakh commencé incha allah dinañ ko commencé nañu euh, lancer marché yi travaux yi dina beneen bi aussi ñu ngi clôturer école primaire bi nga xamante ni moo nekk seen Diack loolu lépp rek dafay wone nii dañoo jóg ñun pour euh, vraiment euh, éducation bi dellu na mu meloon ñun bañ fiy jàng bañ nekkee xale. waaw xam nga boo gisee ñu def loon doléance yi dafa bari woon wax naa ko léegi ci kàllaama nasaraan euh, dañuy dem ci ay cérémonie yenn saa yi ci village yi beneen CM bi nga xamante ne moo ne ci dëkk bi moo ne ci commune bi dañ fa dem benn jour di waxtaan après population yi daan ñuy saisir nañu CM bi bu xale yi di jàng mbaam yi ak fas yi dañuy taxawaalu ci biir looloo tax ñu geste geste yooyu vraiment pour fexe daal en tout cas ba niveau bi nga xamante ni moo fi amoon bu njëkk ba ñuy jàng amaat fi looloo tax ñu wut ay kaye ay bic vraiment yokk daal ren lañ daan def ñu def lu ko ëpp mais nag aussi tabax ay classe euh, clôturer école yi ca incha allah loolu dañ koy gën di continuer ak di gën a yokk fourniture yi waaw taseet moom alhamdulilah bi ñu ñëwee fekkoon nañ fa ay abri provisoire waaye yàlla dimbali nañu fi mu toll nii abri provisoire amatu fi donc fi may wax ak yéen taset école yi classe yëpp fu fu nit di jàng rek euh, dañ ko tabax loolu nag mooy li nga xamante ni moom lañ président Macky Sall sant ni ñu bëggatuma gis ci Sénégal abri provisoire niñ ko defee taseet nag noonu lañ koy defal fépp man en tant que secrétaire exécutif du PNDL ren xaalis bu takku laa jël dugal ko ci tabax ay salle de classe ak ay cloturer ay école ci Sénégal yëpp ñu ngi koy jéem commencé nañ ko nañ ko defee taseet noonu lañ ko defee donc 557 communes yi nekk Sénégal yëpp en tout cas bu soobee yàlla euh, objectif mooy li nga xamante ni moom la ñu président moom la président bëgg bu ma gisati abri provisoire ci Sénégal loolu fii la ñuy jóg di ci tool nii di ci dox guddi di ko dox bëccëg en tout cas ñu ngi tabax vraiment montant bu takkoo takko takku la PNDL jël ren ñu ngi tabax un peu partout ay salle de classe ca loolu bokkut ak nag grand budget bi nga xamante ni le ministère de l' éducation nationale mu ngi koy def ci éducation ci Sénégal yëpp. waaw ñun alhamdulilah euh, bépp école bu fi nekk muy primère di ñaari CM yi fi nekk. Euh, yàlla dimbali nañu enseignants yi ak parents d'élèves yi waxtaanoon nañu et cetera donc fii moom li fi am mooy ubbi tey jàng tey donc nag ñu ngi koy sante vraiment enseignants yi yu taset euh, di ko sante parents d'élèves yi parce que ñun daal am nañu déggoo ñun ak suñuy enseignants donc man maire maa ngi sant bépp enseignant bu xamante dafa nekk ci commune Tassette parce que ñu ngi jàpp ci njàng mi ñu ngi may interpeller loolu moo waral ñu am loolu yombul nag waaye yàlla dimbali nañu ba ren ubbi tey jàng tey jàng tey moo fi am